alhamdulillah salaatu wasalaamu ala mawlana rasulillah wa ala alihi wa asxaabi man daa bi daawati wa sunna bi sunnati ila yawmi din mbokki Sénégal mbokki àdduna bi maa ngi nuyu mboolem taalib bàyyi ak julli ñi <clears throat> fu ñu mën a nekk ci àdduna <clears throat> di leen yëgal xew-xew bu rëy bi nga xam ne ñu ngi koy waajal jamono yépp nga xam ne ni ki yawmul isnayni bii ñu dëdmal la muy altini ñàkk fukki fan ci mois de janvier muy xew-xewu lan muy xew-xew bi nga xam ne ci lañ war a sargal suñ imaamul akbar imaamul jaamiul masjidu cheikh al islam muy cheikh Ahmad Tidiane ibnu cheikh Ali Cissé nga xam ne indil na Sénégal ndam lu màgg lu rëy loo xam ne mbooleem àdduna bi ak Afrique yëpp ñu ngi fuulu ndam loolu rawatina Sénégal gi nga xam na fi la dëkk kon ñoom ñu ñun loolu ñoo ci waroon a jiitu ñoo ci waroon dëkk imam akbar juróomi téeméeri personnes yi nga xam na ñoo nekk ci àdduna bi ren nga xam ne yàgg na indi ndam yu koy yooyu ci Sénégal eh, ren moo jël ñaar fukkeeri place bi ak ñeent ci Afrique bu ñu tuddee Afrique yëpp moo jël troisième place bi ci Afrique noire moo jël premier place bi ndam loo xam ne mbooleem àdduna bi dëgg dëgg yàlla Sénégal war nañoo jóg njukkal ko ci loolu loolu moo tax na jamiya bi nga xam ne maa ko jiite ci département bu Kaolack ñu tuddee ko ataawun wa taaq yi ñu jóg génn initiative yooyu pour def ci ci oo mboolem taalibu Baay ñu ngi ko defee Fass Cheikh Tidiane 1 mbedd pharmacie bu Fass Samb ancien pharmacie Fass Samb bi tam den nag kër kii bi nga xam ne marché bi nga xam ne moom la Mouhamad Ndiara moo di tabax mbedd boobu tout droit ci programme bi. ci oo Sénégal yëpp di ko dalee ci président Macky Sall mi nga xam ne mooy président réew mi nga xam ne peren nañ ko bés bi ak ki nga xam ne mooy soxnaam di Marième fay Sall ñu ngi koy oo bu baax a baax rawatina nag ñi nga xam ne ñooy ko toogal Kaolack ku ci mel ni Mohamed Ndiaye Rahma madame la ministre Mariama saar Demet ñoom Pape Demba bi tey ñoom Serigne Boub ñëpp ñu ngi leen di oo ci bésu imam Cheikh Ahmad Tidiane Seydi <clears throat> Ali boobu waaye du ci oo muxaddam yi nga xam ne ñoo nekk Dakar ki nga xam ne mooy Sang Njaay nga xam ne bu keroogee incha allah mooy wax ci turu mbooloo mi xaddam yi nga xam ne ñoo nekk Dakar waaye tam ku ci mel ni Cheikh Abdou Ndaw waaye tamit ku ci mel ni ñoom Mamour Issa ñëpp ñu ngi leen di ci bés boobu nga xam ne mooy bésu imam Cheikh Tidiane Seydi Ali Si mi nga xam ne ci la ko Sénégal yëpp di sargal yëkkati drapeau Sénégal bi nga xam ne moom yëkkati na ko ci façon boo xam ne ñëpp alhamdulilah war nañ ko cee njukkal loolu la jamiya bi di oote ñu ngi oo Sénégal wërngal këpp du murit ba ci Cheikh bas Abdul Xaadir bokk na ci ñi nga xam ne moom lañ ko tuddee ngir yaatal ngir ne jullit julli rekkaay mbokkam te ñoo bokk réew mi ñoo bokk Sénégal te diggante Touba ak Marina Baye gis nañ yàggaay bi ñu ngi ci oowaati waawoon di ci oo mboolem këri diine yi koo xam ne Sénégal nga rek bés bi amoo ngant ci teew ci gannaaw buñ gërëmee na bi ibnu cheikh al islam cheikh ibrahima Niass nga xam ne aalimul alama la aadimul umma mooy cheikh amadul maayi keroog biñ demee ci ma wax ko mu ne maa ngi seen kanam maa ngi seen gannaaw bés bi jiitu naa leen ci ndax bés la boo xam ne rafetlu naa ko bu baax a baax a baax ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yàggal ko fi may ko wér kon oot baa ngi noonu nañ ko fooglu altine la 10 janvier ci fa Cheikh Tidiane ci mbedd mi nga xam ne moo nekk ci mbedd alfayda bi mooy diggante marché bi ak fi nga xam ne mooy mooy pharmacie bu Fass Samb bi foofu la ñuy defee li nga xam ne moom mooy programme bi pour taalibe na ci àdduna mbooleem commune yi nga xam ne ñoo wër Kaolack mbooleem département bi ñépp ñu ngi leen doo kenn amul ngànt du oo nag Banaatul Fayda du oo tamit eh, Safa Marwa bi nga xam ne madame eh, Cissé Fass Samb moo ko jiite bi nga xam ne ñoom Safawu mu Cheikh Alaaji Abdoulaye Niass ñoom ñoo ko jiite ak mbooleem ñi nga mbooleem ñi nga xam ne daal ñu ngi yëngatu ci mbiri faydu bi ñëpp ñu ngi leen cee oo képp ku am suruq ak loo fa mën mbootaay goo fa mën a def eh, bu dee ay station yi la ak lépp lu aju ci liggéeyal baay ak lu mën a doon rek ñoo ñëpp ñu ngi leen ci oo te xam ne mbir mi kuy am ngant yi tam bokku leen ci ndax julli ñi ñëpp ci war a participer waaye rawatina ñooñu nga xam ne ñu ngay yëngatu jëmale ci baay kenn amul ngant ci bés boobu ñu ngi cee oo ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu